maa ngi toon tontuwaale sëñ Abdou Bara Doli département de Mbacké moom defe naa ne ña fa dëkk am fa cër gis nañu ma ñëwati fa ñëwati fa ñëwati fa indi fa ay financement ñu fa dëkkul nag xama fu ñu ne waaye ku ma xam-xam ne man cër bu ma am Touba man xam naa ko waa Touba xam nañ ko ñu fu dëkk am fa cër man mi fa dëkk di fa programme programme d'animation culturelle il faut 200 millions de francs CFA 100 millions ma jox ko Femme Touba yi barki dem ci Covid bi j'ai appelé ñoom la département de Mbacké li man joxuma ko benn département 160 millions 80 femmes ont été financées ku ne 500 000 250 ñu may la 250 que Vous ngeen nekkoon bon temps fu ngeen nekkoon Vous ngeen nekkoon may la man s'il vous plaît famille financée, famille financée. c'est la première fois c'est la première fois Madame, dans un département nous c'est la première fois j'ai été dans presque 7 14 dans 14 8 régions du Sénégal Faut madame dem apprécier département Mbacké xam les femmes de la PR nañu joxuma de financement kan laa ko jox femme La le projet d'appui aux femmes le projet d'appui pour les femmes impactées par la Covid-19 ce sont les SEDAF qui l'ont piloté SEDAF ñoo ko piloté Nous avons piloté nous avons... piloté le comité consultatif des femmes je reviens sur le renouvellement des instances des femmes le renouvellement des instances des femmes parce que femmes ce sont les partis il faut que nous nekk présidents. nekk ñoo ci présidence Quand le projet nous naa les femmes yi nga les femmes de la paix n'ont pas bénéficié On a ko collègue honorable député Fassène. Tu wax tu les femmes une femme case, une casse Touba va vidéo yi femmes appellent lu nekk nañ parce que financé ce ma je am na ku wax ne madame la ministre sa passage au ministère est marqué Son passage au ministère j'ai parlé tout à l'heure de la loi criminalisant le viol et la pédophilie c'est une avancée majeure pour les femmes du Sénégal majeure indéniable ku ne xam nga ne avancée boobu am mosuñu ko am ci réew mi président def c'est une avancée boo xam koy du a fay ci réew mi loolu laa porté man au niveau de mon challenge aussi moi la constitution de ce centre d'accueil et de prise en charge des femmes victimes de violences et de bases de le la construction des de transformation parce que l'eau, fait des femmes femme dans les micro projets dans les industries